مستوردا دون سقط عند سرسارا mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen xibaar ziar Sarsara édition 2022 bokk na ca gën fës li waral lépp li nga xam ne moom mooy ziar Sarsara ca Mauritanie ki nga xam ne donc moom mooy Cheikh Abdoulaye Dieye jëw na ci solos bés bile ak li nga xam ne moom mooy pay gu rëy gi nga xam ne ni Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul euh, suñu borom fay na ko fa muy wirdu Maxuus solos wirdu boobu noonu ci nu mu gën a yaatoo ci ab plateau la ñu ko xamalee ni ki biig ci guddi li nga xam moom mooy jëm ci kafe maanaam ku wax euh, ahlu kafe foog nga tudd ca café ga Euh, ñetti téeméeri kiloy kafe moom la daayira bi waajal ayu bés yi nga xam ne daan ko def fii ci Mauritanie euh, ki nga xam ne moom mooy daam ñu gën koo xamee ci daam kafe dina ci ñëw ci ay leeral. ba tey ci wàllu daluwaay yi xam ngeen ne Daaru Naim délégation bi ëpp fii la ñëw euh, ànd ceeg soxna maam isa Mbacke ki nga xam ne moom moo yore accueil ak hébergement di Serigne Sabara Fall ak Pape Fall ñoom dikk nañ ci ni nga xam ne noonu la waajalee bés bi ci wàllu ki xam ne moom mooy bernde yi nag soxna si nga xam ne moom moo yore li nga xam ne moom moo jëm ci bernde yi muy ci ay bés yi tamit ñu ko fiy def eh, li nga xam ne moom mooy délégation bi ñoom waajal nañ leen bu baax a baax ci lu jëm ci bernde ba nga xamante ni équipe bi ñu àndal taxaw nañ temb ngir ànd ak soxna si ci bés bi la xam ngeen ne bu ñu jógee foofu noonu fu mbooloo daje fu ne di leen wax wàllu wér-gu-yaram ñi nga xam ne ñoom ñooy waa croix rouge bii mooy ñetteel bi at ñuy ànd ak daayra ahlu café njiital Abdoulahat Seck waaye nag mu ànd ak ki nga xam ne moom mooy équipe bu takku ñu jëm ci wàllu consultation moom Abdoulaye Seck ñëw nañ ci li nga xam ne moom moo gën a am solo ci bés bile. ñu jeexalee ko nag ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Sidi Mbacke Mourtala moom mi nga xam ne doon na def tànkub demeeku ci mboolem daayira yi nga xam ne ñëw nañ ci ziar Sarsara édition 2022 bi fii ci Mauritanie kaddu yi mu fi yëkkati daan ci ànd ak Abdoulaye Faye mu dégtal ñu ko wax li nga xam ne noonu la gisee moom bés bi ak mbégte mi mu ci àndal mbokk yi ci kanam tuuti ñu dikk ak yéen ci gi لو دون سقط عند سرزارا mbokk yi jërë ngeen jëf comme ni ñu ko waxee woon rek sànq ci bopp xabaar yi ki nga xam ne donc moom mooy Abdoulaye Dieye ñëw na ci li nga xam ne moom mooy wirdu Mahfouz fële ca Mauritanie ca Sarsara maanaam bés bi nga xam ne nii euh, foofu la mbooloom yëpp fas yéene daje moom nag wax na li nga xam ne moom mooy wirdu Mahfouz leen mooy solo si ak ni ci euh, ki nga xam ne moom mooy Cheikhul Khadim jotee loolu yëpp ñu ànd ceeg Cheikh Abdoulaye Dieye ci ay leeral. wirdu bi moom mi ngi ko jotee Sarsara te mi ngi ko jot tam ci weer wi njëkk. ci weeru koor wi ko fekk gànnaar te xam nañ ne sëriñ bi mu ngi bàyyi ko Sénégal ci weeru gàmmu waaye weeru koor wa ca topp nag sarsaara la ko fekk fa la jote wérde wi boo demee tam ci ñaari xasida yii day mel ni sëriñ bi doon na waajal jotug wérde wi ndax boo demee ci wakkaan àqan daa wax ne naajeytu rabbiya bi sahri ramadan sahril amaani wal muna wal fayadaan diyaale naa ak sama boroom ci saxu Ramadan muy weeru koor diyaale goo xam ne dafa ànd ak confiance ba pare mu boole ci ay xiiwal yoo xam ne xiiwal yi su ñu ko doon misaal day mel ni géej goo xam ne dafa dagg di wal nga xam ne amul yemukaay kon loolu day wane ne mi ngi doon waajal ne wérdi waa ngi ñëw mu waxaat ne suñ boroom tam teral na ma te tiraanga ji eh, bari na waaye mën nañ koo jiiñ wérde wi ci weeru koor wu nga xam ne moo ko fekk fara anil akramu tafri an yaduum bi an na nii xillun wa hibbun wa qadim waaye itam yàlla bu la mayee danga koy sant kon cant gi mu santam ci wakkaan akkan day wane ne kon sant na ci yàlla jox gi mu ko jox wérde wi lahu sukuriya ilal jannaati daaril muna wal amni wal minaat te loolu mooy danaa sant sama boroom ba baa may tàbbi aljanna ajana ja nga xam ne mooy këru xiiwal tey këru wóolute di kër goo xam ne ko fa tàbbi dootoo bëgg dootoo am loo loo bëgg te amoo ko ba tey ci li nga xam ne noonu laa ko waxee woon sànq rek lu jëm ci wàllu accueil ak hébergement xam ngeen ne nag délégation bi ànd nañu ak euh, lu tolloo ko ñetti téeméeri nit ñëw fii nga xam ne moom mooy Daaru Naim waaye lépp yemb na ci wàllu accueil ak hébergement ki nga xam ne moom mooy Serigne Sabara Fall ànd ak doomam Pape Fall ñoom ñoo teeru gan yi dalal leen ci mboolem daluwaay yi nga xam ne ñoom ñoo wuute ñu déglu ci Serigne Sabara Fall. tubaarkalla macha allah ñun euh, mbégte lañ ci àndal bu bu dépassé suñu weesu ndax ñun alalu Sëñ Tuubaa la ñu kon bu njabootu sëñ Tuubaa ñëwee tàbbi ci ñun mbégte bu rëy lay def ci ñun ñun ak suñu njaboot ak dëkkandoo yi ñu àndal yëpp. bés bi bu biñ ko waajal léegi ñëw nañ ci dëkkandoo yi waxtaan ak ñoom macha allah fa ñu génn seen kër yëpp fa tabaarakàlla jox gani boo xoolee lu mel lu toll na euh, juróom-benn kër fa tabaarakàlla dal ñoo macha apartement yi kenn nekku ci ñoom ñëpp macha allah gan yi ci dalal kon fa tabaarakàllaa am mbégte loolu baax a baax a baax ci gan yi bu ñëwee ñu dalal leen tertu leen kon macha allah am na ci mbégte bu baax baax a baax. li nuy jëfee nii sëñ seex Cheikh Massamba moo ñu ko joxoon ren def naa ne mooy suñu ñaar fukkeeli at bi nu koy doxal léegi ren it bi ñu dellu see ci ndigal li jëfe ko tabaarakàllaa soxna maam Issa ñëw nañu fi teer teew fi ak délégation bi ma àndal ak sëñ Kara Mbacke moom sëñ euh, Modou Fatou Khary ak njaboot gi ñu àndal yëpp Mbacke Mbacke ak taalib yi ñu àndal mu nekk mbégte bu rëy ci ñun. organisation bi am nañ Baye Fall yi nga xam ne macha allah ñoom ñoo yor wàllu organisation bi avant gan di ñëw defar nañu lépp préparé lépp toog di xaar gani yi tertu leen ci jàmm ak salaam. amul lu ñu waaj tey amul lu waaj tey bés bi daal bu egsee lu lu nu fekkee daal ko ci def sëñ Tuubaa danañ ci def loxoom ak Seex Masamba lépp dana jàll yoon waaw ñun amuñu leen amuñu kees bu ñu koy dajaleel amuñu leen mais bu bu waxtu wee jeeg se rek sëñ Tuubaa ñëw ak xéwal ak Seex Masamba ba lépp jàll ci xéwal gi def si nag wi nga gis léegi ay tout tànk yi ñoo ko fi indi léegi bu yàggul noonu nag la bokk taalibe bi yëpp ak dëkkandoo yi di ko def ba lépp lu ñuy weesu dana jàll xéwal gi des ci seen gannaaw kon ñi ngi si sant yàlla bu baax xam ni liggéeyal sëñ Tuubaa rek wër liggéeyal sëñ Tuubaa Seex Masamba rek wër ñun daal fas nañu yéene nekk ci ba bu nuy eh, leen di fekki waaw boo xoolee bu yàgg gaa yi ñoo ngi ko daan tasaraal diggante cinquième waaye boobaak léegi fa tabaarakàlla jëm ñaari at ñetti at fii ni ñu koy wàcc ci kër gi fa tabaarakàlla mu neex lool yaatu lool dëkkandoo yi jàpp ci baax a baax baax a baax. bu ñu jógee foofu noonu mbokk yi Serigne Sabara Fall wax na li nga xam ne moom moo jëm ci daluwaay waaye nag ku fu mbooloo tamit daje rek bernde yi ñoom nag soxna yi nga xam ne ñoom ñoo yore waañ wi dikk nan ci ñi nga xam ne noonu la ñu waajalee bés bi ci maanaam ay bés yin fi def ñi nga xam ne noonu la ñuy yendoo ci naaj bi fas yéene berndeel gan yi nga xam ne ñoom ñu ànd ak soxna maam Issa Mbacke ñoom ñëpp nag fa taxaw leen tem ngir euh, taxaw leen ci bés bi laata ñu fi jógee dem fa nga xam moom mooy Sarsara ñu déglu soxna si nga xam ne moom mooy yore waañ wi. gan yi nag moom préparé nañ leen xëy na kër yi xat na waaye macha allah sunu càmmiñ fexe na ba dalal leen ñu ngi leen di dalal jàmm. ci daaru Naim ngeen dal jàmm ñu màggal ko ci jàmm delluwaat ci jàmm ba ti incha allah képp ku fi teew ren yàlla na nga fi teew déwén yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué le incha allah rabbi pare dañu pour gunge leen ndax lépp maanaam mat na lépp teew na fas yéene nañu sunuy gan yi nga xam ne ñoo fi ñëw duñu xiif duñu mar ba keroog ñuy ñibbi. ak mboolem nag koo xam ne rek soxna si ànd naa ak moom ñaan nañu yàlla mukk ñu fekk ñoom fii ci Daaru Nayim gii ñuy xiif wala ñuy mar ba keroog ngeen di delluwaat Sénégal incha allah. mbokk yi xam ngeen ni ma koy xawoon sànq rek lu toll ci ñett téeméeri kiloy kafe moom nag la ñuy waajalee ay bés yi nga xam ne ñoom ñooy am fii ci euh, Daaru Naim waaye tamit ba ca Sarsara ki nga xam ne moom mooy daam ñu gën ko xamee ci daam café wax na li nga xam ne moo jëm ci café gi nun koy waajalee fii ba ba ñuy delluwaat Sénégal ne dara doo xam ne du fi manqué ndax escale bu ci nekk rek ak danoon tàngal ñu déglu sëriñ daam ci maanaam ay leeral. li ñu pro programme ci poudre kafe bi nag toll na ci 300 euh, kilos café. 300 kilos nag euh, li waral mu mu mu mu bu bari noonu ndax dem beeg dikk bi ak bu ñu dem Sarsara fu ñu taxaw rek bokk talibé yi dañuy laaj café dañ ko woo ndax ab coonokat murid yi comme ni ko Serigne Moussa Sall yi waxe woon naan gi gën a riche su suñu naan mooy kafe moo waral ñu ñu ñu baril ko ba bu jotaay bu ñu mën a taxaw rek bu ñu ko laajee ñu mën leen koo jox ñu ñu ñu xewlu ci café Sëñ Tuubaa moo waral ñu préparé 300 kilos café suukar si tamit fii lañ koy faggoo ndax am na fi moo waral euh, indaale wuñ ko bi ñuy ñëw waaye li ñuy euh, li ñuy li ñuy li ñuy suukaree lépp euh, daayira bi fekk nañu lu ñu ko ba pare ba tegal ñu ko nga xam ne toll na ci di sacs suukar nga xam ne maanaam dinañ ci suukar fii ak sar saara ak yoon yi fuñ fuñ ñu laajee li nga xam ne mooy kafe gi rek ñu ñu ñu mën koo ñu mën koo dënale comme ni ko sëriñ bi bëggee waaye daal li ñu programmé ci kafe mooy loolu ak li ñu programmé ci suukar bëgg nañ comme ni mu ko daan waxee rek képp guñ romb rek même sax boo fekkee xéwlu nga danañ danañ sàkku nga xéwluwaat ndax ni ko ni ko ni ni ko sons gan di waxee sëriñ Tuubaa euh, soxna maam Isa di ko nettali euh, sëriñ Saliou nee na jàng ak naan café dafa bokk ci mandargaam yoonu murid moo waral ñun café gi ñu ci ñu ci ñu ciy bu baax ndax mooy sawarlu murid yi ba tey mbokk yi ci wàllu wér gu yaram xam ngeen ne Croix Rouge at mu jot ñuy ànd ak nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Croix Rouge li ñu dikkee ren euh, gis nañ ci ak yokkute waaye tamit gis nañ ne maanaam saa su ne rek dañuy sawar ànd ak délégation bi Abdoulaye Seck ci ay leeral. dispositif bi ñu daan jël xëy na ren soxna si koo gën a yokk ndax xam na ne mbooloo mi dafa gën a te it ku ne xam na ne yoon bi yombul à 100 pour cent ndax ki nga xam ne moo tax ñu fiy ñëw muy Cheikh Ahmadoul Khadim donc ba mu fi ñëw amu fi lenn loo xam ne dafa yomboon ci moom ah bi nga xamee ne nag so yàlla dogal na soxna si jaar ko ci suñu grand bu ñuy wax euh, Ousmane sàmb ñu koy sant baax di ko gërëm ah soxna si woo ñu mu nekk ñetteel bi yoon comme ni nga ko waxee nii ñuy ànd ak moom fii ci Sarsara euh, dispositif bi ñu waroon a jël yëpp moom daanaka soxna si moom léppam daanaka moo ko defal boppam boo naree jóg sax def dara danaan la déedéet bàyyil xaaral ma ñëw lépp da koo dañu koo yombalal daal. ren euh, bëri na nag bëri na parce que détecté nañ fi am na ñoo xam ne ay HCA lañ am HCA xam ne am ay douleur articulaire surtout yoon bi dafa yàgg yoon bi yàgg na ñi dañuy crampe ñi am ay problème diabétique moom fépp la am léegi daanaka moom daj na àdduna ko waxee nii rek xëy chaque fois mais façon tawat yooyu daal bokk na ci nga xam ne moom lañ fiy gis surtout am na ñoo xam ne bu génnee rek seen bopp métti voyage bi métti na diis na mais nag lépp dañ ko def ngir jëm ñi Cheikh Ahmadoul ndax am na fay te dañu fay ñëpp yàlla nañu daal sëñ bi fayal soxna maam Issa Mbacke ci barke sëñ Fall. Euh, ci wàllu patience ren ñaata euh, yaakaar naa ne consultation bi depuis ba ñu accès démb ba léegi nit ñi coono voyage yu jàpp leen ñi ngi daw di ñëw ci ñun. donc euh, recensé nañ lu war a toll ci quatre-vingt-douze personnes yu nga xam ne jaar nañ fa ñenn ñi ne seen yaram mooy metti ñi bopp yuy metti xëy na coono voyage bi moo leen jàpp am na yoo xam ne seen i tànk toogaay bi yàgg bi ñoom ñëpp jaar nañ fa donc on a enregistré ci fi may wax ak yow nii quatre nga xam ne pour le moment jaar nañ fa te am na ñoo xam ne dañ fay jaar jaaraat donc ñooñu aussi bu ko comptabilise bu comptabilise wul ñe parce que benn yoon lañ leen wàññi donc bu ñu leen wàññi woon wàññiwaat donc dana lim doon na gën a takku doon na gën a ëpp loolu mbokk yi xam ngeen ne ba tey rek ci wàllu xibaar ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mauritanie nag ñoom seen maanaam mbégte bi ñu wone ci li nga xam ne bu la gisee délégation bu jógee Sénégal soxna Maymunatu moom moo nekk fii ci Mauritanie di kenn ci sunu mbokk naar yi nga xam ne nii dalal nañu gan yi waaye kaddu yi mu yëkkati kaddu yu mbégte la ñu àndu teewlu ay kàddam. ñoo ngi sant yàlla bu baax ci gan yu tedd yi nga xam ne nii ñëw nañ fii ngir ay jéego yu baax. muy bërëb bu baax di Sarsara di sant bu baax itam biñ fi ñëwee gis nañ ci ñoom ak njullite ak ak laabir loolu tax na nag ñu yaatal leen bu baax a baax di ay gan ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla lu baax rek lañ mën a seede ci ñoom muy jàng alxuraan bernde ak lépp lu ci ajo moom daal am nañu cant ak mbégte bu baax a baax boo ma antum mbokk yi comme ni ma koy waxee woon sànq rek Serigne Sidi Mbacke Mourtala tànki nemmeeku yi nga xam ne ñu ngi ko doon dox ñu ngi ko tëjee fii nag ci Daaru Naim gannaaw bu mu defee ab nemmeeku ci mboolem daayira yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii ci Séné euh, fii ci Mauritanie ngir waajal li nga xam ne moom mooy ziar Sarsara moom nag kàddu yi mbégte la ci yëkkati fii ci kanamu soxna maam Issa Mbacke ànd ceeg mboolem euh, daayira yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii ci Mauritanie ñu déglu Serigne Sidi Mbacke. kàddu cant rek la damay sant Euh, taxawaayu soxna si ndax fii ne boo xoolee yokk yi ñu wax ci bis bépp ah, ci moom la tàmbalee waaw bisub sarsaare bi yokk yi ñu ciy wax ci délégation yeeg ak nu mën a toll ci moom la tàmbalee mais délégation bi njëkk jóge Sénégal ñëw fi fekk suñu fi ci bis bi ku ci raxwaa gànnaar moom moo ci jiitu kon euh, loolu fu mu toll rek euh, kon lu ci dolliku rek moom lañ koy sante kon nag loolu yi dañ ko doon seereel rek waaye ñu xam ne euh, waaye moom xam ne li muy def ndax ma dama jëlale Sarsara sax waaye ba ci ba ci tuubaa rek ñun buñ fa nekkee dañuy gis taxawaayam ci biir dëkk bi ci ci ci liggéeyal sëñ Touba nga xam ne luñ sumb ci liggéeyal sëñ Touba bi rek boo geesoo gis ko gis aw nitam loolu loolu loolu yi tamit lu rëy la mérite bu rëy la boo xam ne ñu ngi ko koy ñu koy sante bu baax a baax a baax a baax kon nag ñu dañ ñaanal mboole mi ngeen àndal dalal seen xel ngeen xam ne li am solo yéen a ngi ci ñaanit gi gi gi ngeen ci am ñaan gu ko gën a mag mënta am mooy ñaan ak Sëñ Tuubaa ndax moo ne waqdi xawaaija alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu kon ginnaaw yéen a ngi koy liggéeyal tab bi ngeen ci ñaan ko jërëjëf mbokk yi loolu moom moo nekkoon seen xibaar ziar Sarsara édition 2022 di leen dig daje ci yeneen jotaay xibaar lu laata loolu daan leen bàyyi ak édition spéciale yi nga xam ne ni amal nañ ko fii ci Mauritanie.